ma koy kumtu ma koy commencé di continuer ma jël ci biir développement maanaam mahabbatu fi xaalif muskun fi yaafian ba ma demee bay maktal bay nekk garaan sax maa ngi yëg ne maa ngi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee bay bëgg a màgget ci étape yëpp maa ngi xëy wax na ma gërëm gërëm bi maanaam ndax mën a dinaakaan na ku kaati ñu xobga nit ñi est-ce que mën naa nëbbu ni ma ko bëggee su ma yëg yëngu su ma ko nëbbee sax daan ayil juumuma ronkañ yee génn dam il jumuuma wa naarum lay na afsaan ñu ne ko xalifa lu xew mu ne ndax jooy rek moo mën a étouffé moo mën a fay lii nit ki sentir moo tax nit bu meree jooy bu amee lu ko naqari jooy bu amee lu ko kontaan loo jooy xalifa lu xew mu ne niiraanu aswaaqihi قد أخرقت كبدي ودموع عيني يسقيني من العلل xalifa nag lan moo wane ne bëgg na yonent ñaari point yooyu xam naa ne du ma sori مو خليفة قال لنتم عالم الأرواح لنتم عالم الأمر سنيني عالم الناس فيك أدو لديك أفضل كوي فات وهي أمن يخلى يالا دلين كوي يبكي والمولى القرآن جنين عالم الغيب فلا يدين على غيبه أحدا وإن إلا من صدى بالرسول أمن يخلى دلين ستة نفو إنه يطلق بين يديه ومن خلفه رشدا خليفة مغين يدلنا تفاوت الناس في حب رسول الله على مشاربهم من في سابق الأزل من في قزل من بقي ونمون سن بقي سن بقي عدم من الأوتي ينبقى خليفة سيباري من أخم من بقي ونمون صلى الله عليه وسلم من فالبار يصحو ويحكي ما يفاض به والبعد من شكره كشارب السمل وبعدهم صار مبعوثا إجا قجلا مما يشاهد فهو الدهر في وجلي mu ne fal baadu am na yoo xam ne bu ñu naanee ci ñoom yasbu dañuy tiri daal di yeewu wal baad fal baadu yasbu suñ paree nag wa yax kii maa yufaadu bihi ñu nettali li yónn bi def ci moom man ca laa bokk ndax maa wa faafaatuhu bi yemini wa baaduhum dégg nga maam saara ma puutal xija xajala am na ñoo xam ne buñ gisee yonentu baa ñu naan ci ñoom dañoo am kersa wa baaduhum saara ma puutal xija xajala ni maa isaay du foo wa daaru kulli jëli am na koo xam ne diir ak jamono rek day nekk ci njàqare ndax liñ gis la mënta nekk xalifa nag ngir yóbbee booy bëgg ziyaare yi ci yàlla Muhammad yéemu ca ba ngelawam ko romb sax ma ngay wax ak ngelaw la ne ko yàlla xamal ne ma ne ma yow Madina nga jëm ne ko ayaa nasima saba hal anta mutamilun minni ila ardihi ayaa nasima saba hal anta mutamilun ma xalifa ne wallaay ayaa nasima saba e yow ngelawal suba e yo gele wonde merli mangi ila abdi anta tahiyya maa ngay laaj tax damay jógee buur ci suufu kaw nag jëm Madinatul Munawwara su fekkee damay def loolu boo demee maa ngi lay wax ne nuyu ma sang bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tahiyatan min masuqin ta'ala ma tahaba ku sa ko maam xalifa ñes defar maam Khalifa mooy nuyul ma ko nuyoo boo xam ne ma nga bàyyee ko ci soppe boo xam ne yàgg na xolam di tàkk ngir bëgg a dajeg ñun tahiyatu min masuqin baalama taaba ku sopp maam Khalifa defal ne mu ne koo xam ne yàgg na ñu bind naan ëw léegi ko tax di bind yëpp mooy bëgg a dajeg ñun ci yàlla Muhammad te soo ko defut yow nga ne maa ngi lay wax naa ko naasatuka allahu yaaraa wi xadiisi yi mu ndax كرر فيه دواما كل لذات loolu day wane ne xalifa moo nekkoon xutbu jamono ca jamono jooju ndax xutbu bi day am sañ-sañu mën a waxal mboolem mbindeef yàlla yi ndax wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walakin nag laa tafqahuuna tasbiihahum ñëpp ñëpp koy dégg xalifa ne ko moo leen def baamu naa ko xalifa am ngay nuyu xalifa am ngay nuyu xalifa am ngay nuyu mu ne ko karir dee ko répété نقوى فيه دوام اللذات وتيته بالمكيون ترف فيه داما كل لذات ومن وقت أمو مام خليفة لك يالا ديكو باقي بابام أمي فنوية أكمية مرتك لن يوتي قبل li waral xalifa ku koy yëngalal rek ndaw ngay nekk foofu la ko ñaanee li waral xalifa ndaw ñi ni am sago ci moom maa nga rek a xam ko dëgg-dëgg ci xam foofu la jàppee lépp mu kaaba ka moom yonent bi ne ko ñëpp ne nañ maay sa doom ñëpp ne nañ ma bàyyi àdduna ñëpp ne nañ ma bàyyi lépp jël sama lépp jox la man maa waxoon ne wala utiiqu li azbin fiihi walastu ubaari maa waxoon man yusiri diina minhu fii usnihi mutadaali ne ko yow laay wax ak yow yonent bi ilayka rasulallahi asku batalati ka ilayka rasulallahi asku batalati mais ni da ngay laaj ne lan moo waral مام خليفه اتلي زكاة فجاء وهو ينتي من يقول إليك أنت إليك كم هو جاكا وقمر من مقصة يوحيني نعرف أي ورم ينتي هذا محمد مواتي حديث نه ما من أحد يسلم علي إلى رضا الله عليه روحي حتى أرضه من صلاة أو الكوين منه لن يالا ديلو نمسوه روحه وخير يالا ديلو ينتي به روحه ديلو في ديلو خليفة الحاج محمد خليفة يقول تودن عمر ما يمع فاسي تودي يقول إليك رسول الله أتوب كالتي سما فيبر يكبر كالبي كذاك استكالبي لذنوبي وقبلتي ما في فلنفين وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وأنت فيه يعني من دون مك نور يوم يعني شرك من هو توسل كيلوتي يا أرما يتوسل كيلوتي لا أرما بهم توني يا yàlla bu ko alal yëngu amagul ci saa yi waaye dama wax yàlla ne ko jéggal la ci barke فما فاي بو كنا كنا لكو فات دينغلام دينغلام فلو لا كا ما تاب الاله لادم ويوسف من جبين من جبين لا يدي مشيان ما قال في تودو يوم في تودو يوم في جيخال بجين نيون في نول نكو نجلات بن قصيده نيان يالا نورم لكو دو ربي بجاء المصطفى كرما للنفاقين من قوم بالنفاق لكن نسلت قبل تموت النفاق وانا من قال هو بالنفاق من نور لنا لان الجنه هو قال لا من سوندك كم من ناقو تبري يحيى ما يحيى عن ناقو وندو أمم دونه بل ولم أكن في دعائي ربي شقيا وإني خفت من موالي من ورائي ما مولى ينام بصفوة الله يحيى قيرة البلد نجوم أن نولو نعم خمي موني كتاني في يوم نولو نعم خمي موني كتاني في أدنى نولي نعم نولي القلب ما يخلي نولي ما نبي أن رآه إماما جامعا على من نجسب من جيل نولي مولي كتاني في من خليفة الشيخ في أمداري مصامر نك خليفة في جانب tegu nañu ci zaahir tegu nañu baat ci baat yi waaye du ci yem wajalu barran taqiyan saalihan warian mushahidan li jamaali waahidin ahad def ko muy ku baax def ko muy ku sell def ko muy ku ragal yàlla ndax mu ragal yàlla amul soxla wu ma ko waaye nag na nekk koo xam ne jalaal yëtoo yàlla gi jamaal yëtu gi du nekk kay bu ci moom shaada lay nekk ci moom ñu ne ko xalifum ni nag mu ne lahu min al xayr asrarun wa maarifatun te la faatu yàlla da bu tey yërëm ndax yàlla wa alimul xaybi fala yudir ala xayb dafa def istisna ila may tara min rasuli te min rasuli bu ma ko firee ndaw yàlla jeunesse mu ne nag bu waa lawu min al xaybi asrar jox ay secret wa maarifatul murad mu ñu dari diwaani bi jasad bi xarit bu yëgee mi ngi kenn la ñaan ci nag mu def ko taax nit matale ko ci mboole sant yi ñaan yàlla ay ndaw wahab lana rabbi fi awlaadi ajmahin fathan mubinan wa taqwal wahidi sama dañ ko laaj yonent ne ko inqilaal ne ko yow yonent sallallahu alayhi wa sallam inqilabi surtout bi maa rajaaxu ya rasulallahi maa aqul bu ma tojee nag xadis bi nga xam ne mooy wane ne yonentu wa tontu ma xëy yonentu moo wax ci ba tey ci ma baax ni nit yi bu an saxa yonentu yàlla Muhammad moo wax ne inna lillahi malikan wukkila ala xabri yi yàlla am na malaaka moo xam ne ci sama xabru la ko teg man yonentu lu liggéeyam boobu yonentu ngi jóg mu ne wa ataahu asmaul xalaaiq yàlla da koo jox tur mi ndeefi lu ko tax a jóg moom malaaka ma mu ne fa laysa ahadun yusalli ila qaala ya muhammad salla alayka fulaanu ibnu fulaani ne ma yow muhammad jiw ci jiw doomi jiw nuyu na la malaaka ma wax yonent yàlla muhammad ne ko xalifatul xaaji muhammad doomi alxaaji abdullahi nuyu na la moom xalifulaay yonent ne ko inxilaabi juttu bi ma rajax ya rasulallah ma aqul lan laay wax yonent daal di def tasawu ne ko kuulu rajaanaa bi kulli xayrin وطمع الفقر والكسور طيب، خلينا نذكر أو أيضا هنيئا لأهل ذلك لا ها ما رأوه لا أمو من الهبوك ما وحوش بينا حمد يوم حمام خليفة سيوم خليل ما وحنا كيف فوق حمد جسنا مام خليفة تصف فوق تصف فوق لك تجد فوق سيرم أرام لسفرة رأوه لا يدخلون النار إلا مخور يلبسكم أبخالهم هؤلاء يدخلون النار إلا مخور كلا يلبسكم أبخالهم mu ne bal kon kay li idra يدخلون الجنة يدخلون الجنة دون إخراج moom it dana dugg aljanna te di ko génnee waaye Omar dafa am seetloo bu nekk ci xasida boobu moom xalifa bi ñu tudd daa taxaw ne wa ay xalal kullu góor yàlla yëpp kullum nga yàlla xam nañ ne maay seen imam te yàlla waaye xalal kullu ani imam moom fi ilaa bi xalifa génne àdduna ñi ko woy ñëpp imam lañ ko woy moo ñu ko ne maata faatu maata nelaw na kan moo faatu al imaamu imaam bu mag ba muy Muhammad Ali mu ne maa gis dafa def kinaaya mu ne maa gis loog sañu islam ak loog ñu ne ngay jooy seen ko ñett ngir lim leen taxawoon waaye dem ci keneen ñëpp imam lañu woy maam Xalifa nangul ko la mu إلهي إمامي أنا نسب أم خريبا maam xalifa ci boppam moom moom moo wommat moom mi nga xam ne mooy sama imam moom mi nga xam ne mooy sama njiit loolu la jàpp mu ne di yemi nii sama xaadana xaayidun ilaahi imaami ana sopp maam xalifa imaamu imam Omar bi di Mouhamed Khalifa fan la Mouhamed Dieng بيميني أقصى المرام الأسباب الجنسية مولم يمنون تفتير غابة مولم يمنون تفتير غابة لا يحلوها يكفي سحرا لأن بأمامي معها الإمام محمد xëpp xaliba sëñ Amady mooy wax ba imam la man imam bi rek laa yëg mu ne maa ngi wax ne maa ngi ne ci maa ngi jàpp ne man Cheikh Islam imam bu mag bi dim na ak waa asafa bi am na imaamu Muhammada xalifatuna man fi suuf dem rek imam xalifa kumoo mam baay way na mam xalifa ne fawa asafaa bi anna al imaamu muhammad kon yaa ma bale xan dégg nga mi ngi amee nag mam xalifa na ma ngay caali Omar di caali dundam bi yëpp dafa continuer di misullu di jooy naan wala istibaali wa damun ayni mun amilun wal aqlu fii walahin wal qalbu fii qabalin mu ne sama rongoñ yaa ngee duur sama munukaay gi yàqu na sama maîtrise bi ñàkk naa ko mënatuma mun tekkalikoo gi ma tekkalikoo yoon ndax daf koo waxoon in faaraqal jismu minnii fii rawdatihi fal qalbu sama rahim ndax ba muy jógee koo màkk ni la doon def ci gerte ndax mën na tekkalikoo yoon ne ko fal qalbu sama rahim cheikh Ibrahima xalifa nag ma ngay laaj ne aman yu eeru janaaha kan moo may aal ay mbaggam yu mën a naaw aman yu eeru janaaha li attiru bii man naaw man fane foo jëm demi bi utilisé moo ma jaaxal illa mahal yi ci sama place laa jëm te mu ngay wax place yén illa mahal yi ci sama place muy place bi murtahi bi mais koy laaj ne ko lu lan moo xew mu ne hal lii rujuuxun ila tilkal biqaa'i bihi est ce danaa mën a dellu ci place yooyu waaye nag ba mu demee bay jeexal xasida ba la ne yëg naa ne àdduna danañ àgg boo xam ne lii nekk beneen ne mooy nit ñi dagg ci yonent yàlla Muhammad bu loolu amee nag man lii nekk phénomène ci moom mooy ma jag ma jokk ci yonent bi lii nekk phénomène ci sama taalibe bi mooy ñu jagg ci yonent bi ne wal kullu minhum yuraahu muttasilun bihi ila baala anhu kullu munfasil Omar dafa guddi ak ñëw ne maam xalifa jeexagul lu mu sa lu mu wax maam xalifa ñees daf na ko ilal xaaj yi ku xam ni muy waxee rek su la neexee mën ngaa mën di rek ku xam man ñi kenn ku nekk am nga rim mooy maye ilal xaaj yi nañ ñu def xaaj Sëriñ Tuuba way na maam xalifa ñees na ko ilal xaaj yi nañ للحاج نجم الحاج ذي العلم والفخر

كما قد على xam-xam bu Omar moom xalifa bi ñu ngi sëñ Touba def na ko aska salaam yi aska salaam min utilisé nakira ndax mu duñ ko tahdid te tamit ne ko salaamun utilisé nakira ka harful miski ala nafatuhu ne ko comme ni nga kawee sa sa ratio kama qad ata kiblan ala kulli zi qadir يا ليتني أن يكون لي وقتا واثقا فأفسر كل ولا أترك شيئا والسلام عليكم